13 minutes de vérité au plaisir de vous retrouver sur Sénégal 7 TV dans votre programme de la semaine ñu amati mbégte toog fii ak suñu invité tey ginnaaw bu ñu leen nuyoo ba noppi nuyu ko moom nag euh, tey ki ñu fi dalal di Mame Gor euh, Diazaka di président mouvement Déclic candidat aussi a la présidentielle de 2024 tey moom la ñu am mbégte di fi recevoir ak moom ci li nga xamante ni euh, moo motiver candidature mais aussi rebondir sur les questions d' actualité mais laata tey di nga maa ngi lay fay maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu képp ko xam ni yaa ngi yaa ngi suivre émission bi ñu def fii ci Sénégal sax. Mhm. alors maam fi ñu dooree nag euh, moo di démb coowal assemblée nationale am nga ban ban gis-gis nga ci am euh, parce que nag ñu ngi leen di reprocher gis nga démb euh, à la suite. Euh, de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale gis nga waaye Yewwi Askan Wi tënk nañu ab conférence de presse joxañ baaram tuuma sa leader président Macky ni daal li mu bëgg moo di dissoudre l'Assemblée nationale indi ay coppite par rapport à article 87 de ce fait moom saa yu ko coobee rek mu indi mu dissoudre Assemblée nationale teg fa ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko neex te ñoom lu ni mel ànduñu ci reproché nañu aussi euh, ni assemblée bi ci gémmiñu kii di Guy Marius Sagna ni depuis lors travaux dañ ko amul benn avancée bu large donc ñoom jàpp nañ lu ni mel lañu njëkkoon waroon njëkk a penché moo gën ñuy ne ay vouloir apporter des des des des euh, des changements ci li nga xamante ni moo di article 87. waaw d'accord donc nag euh, plus tard gis nañ euh, groupe parlementaire bu Benno retiré nañu boobu les boobu les propositions. voilà loolu dañ koy rafetlu xam nga dëkk mooy ni ñu koy waxee dañ koy pencoo loo gis dafa laaj waxtaan. loi bi kenn newul rek ni loi bi dafay jàll nii automatiquement proposition la biñ ko proposé am na ay sénégal ay député yoo xam ni taxaw nañ gis ni lii arrangé wu leen sax ñoom en tant que député parce que même ñi nekk ci mouvance bi am na ñoo xam ni d'accord wuñu ci parce que man maa ngi dégg sax benn député bi doon wax ni voilà moom dafa jëloon prêt ci benn banque xama war ko fay toutou bu ñu dissoudre wala genre yu benn noonu Macky Sall peut-être moom day proposer li gën a neex nag ci njiit mooy ki nga xam ni dafa am woyofu proposé dara mu gis ni askan bi wala ni nga xam ne ñoom la ko sekkal d'accord wuñu ci mu retiré ko donc man damay rafetlu retiré boobu ñu ko retiré Guy Marius Sagna nag bi nga tudd di ko wax gii Marius Sagna place am du assemblée nationale Guy Marius Sagna c'est pas un député xam nga c'est un perturbateur il n'aime pas le Sénégal il fait du n'importe quoi populisme rek lay def non dama lay wax déglu déglu ma la gis nga Guy Marius Sagna c'est la première ci moom la ñu mës gisee ñu def législature bu bees mu ñëw yéeg assemblée nationale nekk institution bu mag ci biir Sénégal nga yéeg ci kaw taabal yi taxaw loolu golo moo ko moom golo moo moom yéeg yi muy def amul sens chaque jour mu gis ci réew mi loo xam ne war nañ ko kaas fii la ñu jàpp ay militaire sénégalais Salif Sadio jàpp leen wane leen ci ay vidéo wane leen fépp di leen toroxal Casamance. mu gis ko mosu ci kaas. dama ne ma rek. mosu ci mosu si wax mosu see kaas. mantooram Ousmane Sonko mosu cee kaas bu ñu jógee di wax ay affaires yu ñàkk a fayda yoo xam ne amul sens gis nga li am sens mooy teg nañ benn projet projet bi si boppam même ñi ànd ak mouvance bi am na ñu ci d'accordul ñoom am nañ woyofu bindi ko tey kenn wotewu ko li am solo mooy proposition. d'accord mais ndax tey déjà ndax déjà yow juumoo boo taxawee ni. Guy Marius Sagna amul place am à l'Assemblée nationale. amul place assemblée te ñu gis yéen à l'Assemblée nationale ngeen am fa élément bu mel ni Kouramaki ngeen am nekk ci assemblée ba di xuloog di xeex comme ñoom ni ñu koy defee. non dama ni dama ni assemblée. dafa am leneen lu ko tax jóg lu dul li Guy Marius Sagna di def. mais ma nee na ndax mais ñooñu nga lim ñëpp ñi nga fi lim ñëpp. riposte la def ça veut dire que ni. tey ku mel ni gii dafay ñëw mais yow nan nga mën a ñëwee assemblée Sénégal Sénégal nga ñëw di këf ay kees ak di yëg non dama lay wax gii Marius Sagna ak waa Pastef dañuy yef Sénégal li ñuy def du politique terrorisme la gën a nurool ko politique mënuñu terroriser sénégalais yi bu ñu yeb sénégalais yi bu ñu fontoo sénégalais yi moomuñu réew mi comprendre la bëgg expliquer li ñuy def c'est tout sauf politique parti boo xam ne bu ñu waxee jóg leen xeex la ñuy wax jóg leen dem taal am nañ cocktail molotov mais dama lay wax parti politique tey jii da ngay xool suñu voisins yi nga xool européens yi nga xool ñëpp ban parti politique ci àddina bi ngay gis ñu nekk ci guerre rek ñooy jël ay arme de guerre jël ay cocktail molotov nantaal leen fii di defar ay mais loolu rébellion la Pastef parti la boo xam ne dañ ko war a dissoudre dañ ko war a dindi ci échiquier politique sénégalais duñu ay politiciens man pour man ay terroriste lañ parce que li ñuy def terrorisme la gën a nurool que politique. mais maam li nga xam ne foo ko teg non dama parce que dañuy mais yow nan nga mën a taxawee di mais di di ay nit dem taal université ba pare taxaw di way Sonko. mais loolu ça ne veut mais. dafa mel ni dama ni dafa mel ni dama man néew moom moo ko conda comme. Euh, moo ko commandité dama ni. ñi ko def bi ñu ko defee ba pare. moom la ñu doon way di way way bu mu doon way moom. man man ça veut dire que ni moom dafa dañuy wane ni ñoom li ñuy def diw moo tax ñun ñu def ko loolu c'est pas normal. ah kon kay da nga bëgg wax ni moom moo ko commandité. non dama ni mooy jóg jóg leen ngeen ngeen dem taal université. mais ci ay waxam Sonko amul benn wax boo xam ne daf koy wax boo xam ni wax bi mën na indi jàmm ci réew mi. fitna xam nga jóg leen ñu xeex Macky Sall dañu war a xeex ak moom. fii Macky Sall day moroomam bay xeex moom yow ñu ngi la yaa ngi toog fii mënoo dem fenn nga ñëw naan taxaw naan damay xeex ak Macky Sall damay def lii gis na il faut que la jeunesse sénégalaise yeewu ñoom seen doom yi ñu ngi seen i biir kër dem ba démb barki démb li koy confirmer mooy bi mu génnee discours bi mu def yëpp fexe na ba duggal ci ni sama doom amul bac yow nga taal univers yow sa ay nit taal université tudde ni di la way yow bu sa doom demul université da war a kontaan parce que tey jii ñun ñi nga xam dañuy toog di défendre université man sama doom dafa am sama doom dafa réussir daf ko dagg d'office parce que baayam dafa taxaw di défendre édifice ak yi nga xam ni Sénégal moo ko moom mais yow boo bëggee taxaw naan sama doom amul bac parce dañ ma perturbé parce que dañ ma def lii parce dama lay wax benn affaire bëgg ko teg association de malfaiteurs lañ. waaw d'accord mais soo bëggee tag sa bopp maam bëgg traité Sonko de terroriste. non tagguma sama bopp ñun ñëpp laa wax dama ni. Sonko neewuma dama ni dama ni ñoom li ñuy def. parce que yow xam nga man neew ma la diw dama ni li ñuy def. terrorisme la gën a nuróol d'accord mais ndax li mu wax tamit jaruñu bàyyi xel comme yow yaa fa dugg yow comme yow yaa dugg ci ci ci point boobu mm. ndax soo ko ji li mu wax keroog ci sorteem jaruta bàyyi xel parce que lu xel mën a nangu la tey ji su waxee ni doomam tey ji barricade yi waaye doomam moo doomam tëgg dama ni doomam jàngul doomam tëggkatu bool la papaam day tëgg bool papaam mooy mbay tama moom mooy mbay bool ay tëggkatu tama lañ nañu yem seen tëgg taw seen yooyu bu ñu sonal nii ay tëggkat tama lañ waay. booy bi booy bi tëggkat tama la fu papaam fu papaam tulee mu mbalax. mooy taxaw ci ginnaaw bu papaam ne rong dong mu ne kulung dung nu muy gañee nu fa muy amee ba. non mais concert concert concert casserole di di forme concert xam nga yow yaa ko bañ ba tuddee ko concert. mais moom nga tuddee moom yow yow yow yaa ko bañ ba tuddee ko concert. mais non concert mooy lan. concert mooy lan. concert mooy lan. def. doom jee koy aw. mais forme de manifestation. mbay tama am na fu nekk. mbay tama. mais mais mais doom jee koy aw. mais forme de manifestation la am na fu nekk. est ce que est ce que loolu war nga ko définir. ci ay mbay tama ak ay ay ay ay kii tama. donc dama ne Sonko lépp lay def ba mu des politique déggul français xam nga Sénégal li ñu déggul français du làkk tubaab bu baax mënul lire ni Sénégal la bëgg a jiite Sonko dafa yëpp Sénégalais yi xam nga fii Sénégal dañ naan diw ban diplôme la am wala diw. diplôme bii la am am diplôme ak am xam-xam c'est deux choses différentes tey alxuraan dama lay alxuraan dama lay daxaar ma la gis na ñii di jiite réew mi fii ñëpp laa Sonko moo ci moo ci jiitu dañuy ñëw naan man diplôme Sorbonne laa am diplôme fii laa am alxuraan a gën a foor ci li yàlla bind da ngay jàng alxuraan ba yooyu téere wàcce kaamil douze fois mais boo paree da ngay dem jàngi xam-xam d'accord mais maman xaar xaar boo paree ci alxuraan ba pare ba jàng ba wàcce kaamil ba pare dangay ngay jàngi xam-xam kon ça veut dire que ni jàng am diplom ak xam-xam c'est deux choses différentes ñoom nag dañuy toog si banc école yi ñu ñëw di leen jox ay diplôme ñu yaakaar ne diplôme yooyu ñoo toj àddina bi fekk ñu fenn nit mën ngaa bari diplôme te doo am xam-xam. d'accord Sonko nag loolu moo ko dal mais gis nañu gis au sein de la coalition de Benno Bokk Yaakaar fi nga xamante ni fa nga bokk ay nit ñu fa bokk comme yow Sonko nekk seen adversaire politique te yow li nga yàq Sonko di nga ko ko yàq lan mooy problème bi s diggante ak. dama bëgg nga déglu ma bu baax la man Bokk Yaakaar man dama am sama mouvement mu tudd déclic ma nekk candidat à la présidentielle de 2024 Macky Sall dama gis ni c'est un sénégalais doon jàmbaar pour man c'est le meilleur président d'Afrique et mondialement amul man pour man président bu gën a efficace Macky fi mu jëlee réew mi ak fi mu ko indi ci programme ci yar ci teggin ci taxawaay ma taxaw nag gis ni kii mu ngi liggéey Sénégal ma taxaw accompagner ko mu dem ba taxaw ni moom bëggatul waaw léegi man damay dem di bot ci ginnaaw kenn non moom laa la bëgg a expliquer moo tax ma ni la man bokkuma bennoo bokk yaakaar dama am sama mouvement moom laa deme woon élection ci élection locale yi bi may dem élection local maa ngi demee sama mouvement déclic ñu créer benn benn benn kii nu mu tudd coalition bu tudd BDT booloo defar Tëngéej ñu dem élection ma am trois conseil municipaux bokkuma ak ñi nga xam ne dañu prétendre. waa léegi bokkoo ci non xaar xaar xaar xaar pend dafa am dafa am benn dafa am benn affaire non ñoo bokk génération parce que dafa yor parti politique man ma yor mouvement politique man may wax lu positif pour luy defar dëkk bi moom muy wax lu yàq dëkk bi di yàq jikko yi moo tax ma contre ko ci sa gis-gis moo tax ma contre li muy wax contre li muy def contre ma ko parce que Macky sal parce que moom warul dëkkale boppam ak Macky Sall pourquoi parce que Macky Sall dañ ko fal muy liggéeyal Sénégal moom tey bu bëggee nekk président mën na dem ay suite booti ay yu niroog yooyu mën na nekk seen président comprendre la mais mënul nekk président Sénégal d'accord d'accord maam ci actualité bi gis nga. Euh, keneen ku bokk ci Pastef di di di El Malick Ndiaye gis nga moom it euh, door nañ ko ab mandat de dépôt ba sax euh, ab barki demb je pense ma juumul xaw ma démb am na li nga xamante ni moom moo di ab retour de parquet ci ay audio yu nga xamante ni nee nañu moom lañ ci dégg muy wax ni xale nañ dem envahir li nga xamante ni moom moo di assemblée nationale donc nag lu ni mel ay jege ñaanam sax wéy dinañ ko ba mu teg ba ci suuf nee nañu nag kàddu yooyu ñu dégg. du ay kàddu El Malick baat boobu ñu dégg itam du baatu El Malick Ndiaye ñoom li ñu ko jàppee ba tey moo di acharnement sa sa tontu xam nga yow da nga dellu si li nga xam ni moom nga doon wax léegi xam nga tey jii kàddu yi moom moo ko wax wala waxu ko Sénégal dafa am police am gendarmerie am ay ñoo xam ni ñoom ñoo chargé wu ci loolu tey yow mi deful dara ak man mi deful dara kenn woowuñu fenn mais boo taxawee tey jii ñu ne da nga ni xale yi nañ dem assemblée te yow sa doom demul na xale yi dem assemble yow sa rakk demul nañ dem assemblée yow sax demoo parce que ñoom ñiy woote fitna ci réew mi yëpp fu fitna am doo leen fa gis Sonko lu mu mas a woote bu police ñëwee ni ko dugal ci oto bi mu waaxu dugg ci oto bi saraxe doomu jàmbur yi booy sax léegi commencé nañ ko comprendre parce que boo xoolee temps yi concert casserole yi ñu mujjee def ak rassemblement yi ñuy def yëpp Sénégal yi dañ leen weddi quoi dem régler ji seen problème mais du yoon nga nekk un politique waxuma la sax ñu ne yow yaa ko def mais ñu lay jiiñ ni yow da wax ni xale yi génn leen ngeen dem xeexi ji génn leen ngeen dem taali ji génn leen ngeen def li loolu dafa rafetul man du ma yéene nit kaso du ma ni yéene nit dee El Malick Ndiaye tey suma sañoon ci wetu jabaram lay toog ak ay doomam jàmm laa ko yéene du ma ko yéene benn safaan mais bépp sénégalais boo xam ne danga nga war a taxaw fii di woote fitna ci réew mi normalement gis nga bay bayal moo indi affaire bi fi mu yegg si nii mais bu fekkoon ca commencement ba képp ku taxaw wax lu mel noonu ñu jël la teg la ci yoon kon affaire bi du yegg si fii nii ñu def ak moom nii ci bii nii ñu ne moom moo ko wax wax na ko wala waxu ko dem na di weddi naan maa ko wax wala waxuma ko su fekkoon noonu lañ defoon ca commencement ba ba Sonko di teel a jóg ak ay Guy Marius Sagna yii nii ak ñoom ñii seen affaire yi ñuy def nii affaire bi rek leen nañ ko bu yàgg man nag li may ñaan mooy dama ni encore une fois dama koy wax fii si télé bi laa koy waxee man du ma yéene nit kaso wala dee yéenewu ma Al Malick Ndiaye kaso yéenewu ma ko dee yéenewu ma ko Sonko yéenewu ma keneen mais képp koo xam ne danga jóg pour ni da ngay taal réew mi dafa am tamit ñoo xam ne dañu volontaire wu dem armée dem quartier di yor ay fetal ñun bu ñu tëddee di nelaw ñoom ñu ñuy sécuriser donc booy jóg di wax lu taal réew mi dinañ la woo fa mbaxane doone benn ni la nii yaa yaa ko wax soo taxawee nag weddi ko ba taxaw ba ñëpp xam ni weddi ko ko waxoo ko bu boobaa ñu libéré la. mais bu ñu gisee arrestation yi nag wax dëgg neex yàlla bu ñu ko waxee nag bëri na lool. ci Pastef non non. man mais yow kenn arrêté yaa ngi nii dóor sa greffage bu rafet dóor sa t toog di waxtaan ak man kenn waxu la dara boo paree jaar nii temps soto dem ñibbi. d'accord parce que waxoo lenn ñi fi ñi fi jàpp ñëpp. mais arrestation yi quand même man nangu nga bëgg na lool ci Pastef arrestation dama ko xoola dama ci kontaan. spécifiquement ah, ñooy génn ñooy ani suñu démocratie. démocratie waaw léegi démocratie ba ci lan démocratie ba yow jëlal cocktail molotov dem taal kër jàmbur. fii yow yow yow ci réew mi nga juddoo temps Abdou Diouf est-ce que gis nga ku daan dem di taal benn kër ministre wala kër benn député wala kër benn sénégalais mais tey da ngay gis ay nit yoo xam ne dañuy toog si internet bi wala ñuy toog si télévision yi naan dañuy dem taal kër diw loolu warul am ci dëkk ñun ñëpp war nañ mën a politique ku nekk faral ki nga faral ku nekk doxal li nga war a doxal te doo dem ni damay dem taal kër ma sàmba wala kër ma dem mais man dama jàpp ni tamit dama jàpp ni tamit dama ni li ñu dund nii ñoom acharnement lañ ko jàppee non dama lay dama lay du question acharnement xam nga nit ku mu neex nga tudde lu la neex li la neex est-ce la ku mu neex nga tudde lu la neex li la neex mais li am solo moom mooy dëkk y a beaucoup de politiciens yoo xam ne ñu ngi ci réew mi opposition bi bari nañ ay nit yu ci nekk yoo xam ne tey jii ñu ngi opposé Macky Sall mais doo leen dégg ñu saaga doo leen ñu xasee am na ay politiciens yoo xam ne ñu ngi ci gouvernement bi tey ñu ngi waxtaan ak sax opposition bi man gis naa benn Mamboy jaaw tey ji mu dem mu assumer mu ne man sama yaay dafa gaañ ñu Sonko ñëw jaale si ma wax wax bu rafet gentleman la tey ji mu ngi taxaw sama adversaire la comme ñu ngi wut réew mi xam nga kooku tey ji kenn du ko kenn du ko kenn du ko xas kenn du ko wax lu ñaaw parce que xam nga am na yeneen yeneen nit ku mel ni Amadou Ba bii ñuy wax ni tey ji